ay ca mbokk yi nga xam ni yéen a safoo di seetaan Tivaouane 24 TV ñu ngi leen di gërëm di leen jaajëfal gis ngeen noonu ki nga xamante ni moom mooy Abdoul Aziz Aly Ndiaye tabaarakallahu gis ngeen nag yi nga xam ni moom la jënd ngir préparer ko guddig yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ngir préparer ngir terale ko gani sayyidina Muhammad yi nga xam ni ñoom la maam Cheikh Alhaaj Malick si woo Tiwaawan ngir ñu ñëw màggal si guddi yonent bi ni ala azimu laylal wiladati xisbatan ida lam yakun na wala araami xudulun Abdoul Aziz Al Ndiaye nag chaque année ñu di ko ci gis mu di ci def lu ama am solo ren nag tabaarakallaahu mu defati ci lu raw la mu daan def nu raw na mu ko daan defee gis ngeen noonu nag yaa ngi noonu lu toll ci ñeenti camion nag ba jamono ji sax ëpp na ko tabaarakallaahu lépp nag ngir waajalee ko guddi gi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam guddi gi nga xamante ni ginnaaw guddi gi laylatul xadri amul guddi gu gën guddi gi nga xam ne ci la xayrul anbiyaa yi wal mursalina juddu woon di sallallahu taala alayhi wa sallam gis ngeen lim bu takku ci ay nag giléem yi tamit ñoo ngi fi tabaarakallaahu lépp ngir terale ko gani sayyidina Muhammad waaye terale ko njabootu Cheikh Seydi El Hadji Malick Sy nga xam ni seen maam moo wootee loon yonent bi seen maam moo tàntaloon sayyidina Muhammad ba tey ñëpp di tàntal sayyidina Muhammad gis ngeen nag yaa ngi noonu tabaarakallaahu Abdoul Aziz Aly Ndiaye mi nga xam ni lépp lu ñuy woote ci kër maam Cheikh Seydi El Hadji Malick Sy ni ma koy waxee da ngeen koy gis ca bopp ba ci njàmbaaram ci pas-pasam ci détermination am waaye it mu nekk taalibi sëriñ Abdoul Aziz Sy Al Amine di turandoo ci sëriñ Abdoul Aziz Sy Al Amine tabaarakallaahu la mu daan def ca jamono yi sëriñ Abdoul Aziz ba léegi lu raw lay def ngir topp kóllëre gi doxoon ci digganteem ak sëriñ Abdoul Aziz Sy Al Amine gis ngeen nag yaa ngi noonu lim bu takk ci ay nag la Abdoul Aziz préparé ngir gàmmu 2022 gi ngir teralee ko ja jàmbaari Seydil Hadji gi waaye ngir teralee ko njabootuk Cheikh Seydil xaaj Malick gi nga xam ni dañuy bàyyeekoo fu nekk ci àdduna bi ngir ñëw màggal si guddi yonent bi sallallahu alayhi wa fii ci Tivaouane kon nag Tivaouane 24 TV dina leen toppal lépp loo xamante ni rek dafay xew te ngeen cee jot ñu ngi leen di gërëm di leen jaajëfal jaa ngeen jëf وشيخنا ومرابينا محمد دين محمد المام هادي أخي الصدق والإخلاص يا الله بجاه طه عليه عليه ثم